You're no. Yolunu götür ifi var Ölçüne okulu Amanın içini zorlar tey ci seen scandale du jour de ce jeudi 4 janvier 2024 fii ci VIP People qui euh, à l'une salle di que ci président Macky Sall mom nak ginaaw biñ ko dalalé ci ben plateau mom néna ci plateau ITV ñu laaj ko mu ne nag convoqué nañ ko justice ci nguuru président Macky Sall ba tey ci seen scandale du jour de ce mille 4 vingt 2024 nañ dem déglu kàddu yi nga xamante ne kii di Alioune Sall di rakk ci président Macky Sall di ex maire fële ca Guédiawaye kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko ñu déglu ko. ñu woo ma fi OFNAC nekk na président ñu woo ma fi police nekk na fi président ñu woo ma justice. nekk na président ma dem élection gagné nekk na président ma dem élection ñu gagné ma. dellu sil gaaw man mi namm naa la lool gaawal ñibbi sil dellu sil. déet du ma seen maire maa newoon seen maire léegi kañ Ahmed mooy seen maire xanaa ñu xaaraat ba beneen yoon. Macky Sall nekk na président ñu woo ma fi OFNAC nekk na président ñu woo ma fi police nekk na fi président ñu woo ma justice. nekk na président ma dem élection gagné nekk na président ma dem élection ñu gagné ma. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo woo nañ ko OFNAC woo nañ ko police woo nañ ko justice. ci nguuru président Macky Sall la amee euh, ci la gagné ay élection waaye ci nguuru président Macky Sall la ñekkee ay élection loolu xam nga la fa ba lan la fa bëgg a wax amul doomu diw nga amul rakku diw nga les sénégalais ñooy choisir gis nañ nekk ci biir vidéo bi ñu naan ay namm nañ li ñëwaatal nee na ñëwul ndax yéen a ko jëndee wax kat yéen a ko jëndee Ahmed Aïdara mi nga xam ne ci télé la nekkoon information bu nekk mu tasaare ko wax ko koo xam ne man a moom a yem liggéey suñu liggéey mooy wax. waaye kuy wax loo koy joxee jëf kuy wax bokkut ak kuy jëf yow nooy xool yi kuy wax nga jël sa sa lépp sa avenir ak sa lépp sa gox nga dénk ko kuy wax waaye kuy wax nu muy liggéey koo xam ne tout àddunaam yëpp temps yëpp ci wax la ngeen a te ngeen di changé ngeen jëndee ko kuy wax kuy jëf duñ ko jëndee ak kuy wax Sénégal na ngay gis mécanicien bi nekk journaliste Sénégal ngay gis kii di théâtre nekk ministre Sénégal ngay gis sàcc ba jékki-jékki nekk imam Sénégal lu ne fi am Ahmed Aidara wax day journaliste la ngeen ne ko déedéet ni yow dootoo wax dangay jëf yombul yombul ci moom miisagul affaire yi moom ba léegi xamagul ni wax ak jëf mënta ànd da ciy tànn benn te nag loo xas ba miis buñ la ko bëggee bàyyiloo day métti wax la tàmm ngeen bëgg koo bàyyi waa géej waaye ngeen bëgg koo bàyyi wax ji bëgg koo jox liggéey mu war a liggéey boole ko ak noppi du yomb mën da nekk da ngeen di xaar da ngeen di xuloo balaa mu ko nangu parce que miis na wax wax lay mooy nekk métier moom mooy mooy liggéeyam ngeen ngeen ne koy jëlee ci wax dugal ko ci jëf ah góorgóorlu leen yàlla baax jadi jadi jangan tahu Onde que eu te vi igual Não tinha procura Ao mundo que te divulgar